peut le faire, bien sûr. Mais, euh, Madame le maire, félicitations. Félicitations au peuple sénégalais. Ah oui, Eh bien, nous, nous mettre juste au travail. Parce que je crois que ce qui s'est passé aujourd'hui est très solennel, mais c'est le fruit de dix ans de bataille. Euh, pour la démocratie sénégalaise. Aujourd'hui, nous avons élu notre nouveau président, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, un jeune président très ambitieux, panafricain, qui a aujourd'hui le Sénégal et l'Afrique à construire. Et nous serons là pour bâtir cette nouvelle Afrique avec tous les Sénégalais, tous les Africains, parce que l'heure de l'Afrique a tout simplement sonné. sant yàlla ci li fi xew tey te xam ne yàlla rek mooy buur ñu xoolee li ñu weesu fukki at yu métti tey ñu ñëw fii tey di installer le président Bassirou Diomaye Faye son excellence en sa qualité de président de la République du Sénégal ñu xam ni sas bi sas bi diis na torop waaye jàpp nañ ni heure Sénégal moo sonné heure Afrique moo sonné et président Bassirou Diomaye Faye ak tous les sénégalais ak jigéen ñëpp ak góor ñëpp ak ndaw ñëpp dinañ liggéey Sénégal bu bees pour ëllëg suñuy doom mën a am naa tànge Khadija Mayekor Diouf maire de la commune de Golfe Sud C'est bon Thank you.